bu ñu ñaan dañ leen di may kon nag maa ngi jéggul li fi pa def defoon mais problème politique la parti bi màgg nag c'est normal su fekkoon nañoo woote rek ñaari nit ak ñetti nit teew bi lii du am ndax salle bi fees na ci suuf fees na ba ci biti fees na kon nañu sant yàlla bu baax a baax a baax di féliciter nag sunu président Birima euh, Mangara Birima Mangara président Birima Mangara defee naa ni am na lu mu seqoon ak nit ñi ci dëkk bi li ci njëkk mooy taalibe sëñ Tuubaa la li ci topp mooy am na yar am na teggin mën na jaxasoo doomu aadama yi am na tey ñoo xam ne bu fi ñëwoon di demandé tey jii du bëri ñu ànd ak ñoom ñun ñi mer nag ñu ci bëri ñu woon dañuy bàyyi politique ndax politique bi ni muy doxee am na ñu ko wax fii léegi ndax xas yi saaga yi niiroo bi euh, ak leneen ak leneen ñun defe naa suñu parti bi ñu sos te xam ne lépp tuubaa la te lépp Touba la kon defe naa ne am na loo xam war nañu ko mën a éviter te defe naa du fi am kon nag ñi sant ñëw tey woowaat nit ñi ci unité unité lu mu amul dara du ci am jàmm unité bu amul lu ñu bëgg duñ ko am te ñun. dañu am yaakaar ci fi ñu dugg ndax kat defe naa waxoon naa ko ci réunion Dakar ba boobu ñu bëri ñëwaguñu woon damaa ni président bi fi nekk tey du ma sax président le responsable de la de l'APR laa wax war na mere responsable yi ñi ñoo fi mbëkk nekk ci dëkk bi ndax kat macha du bois ku gis ñii fi toog ak ñii taxaw. xam ne ay jàmbaar ak dëgg ñoo ñëw kon APR Benno Bokk Yaakaar war nañoo tiit war nañoo tiit ndax ni ñoo wuy ay femmes qualité lañu ay hommes de qualité la mais jeunesse dynamique ana jeunesse yi muy góor muy jigéen ay xale yu dynamique yu am une ñoo ci nekk kon nag. ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp département bi yëpp am na ñoo xam ne ñu ngi ci yoon wi nag excès bu ñu ñu ngi waaj a ñëw waaye mënumaa waxte daaneel te santuma gërëmuma sama chéri yooyu mi sëñ Abdou Karim ak sëñ dañoo jàng fa ñu war a jàngee gannaaw bi ñuy bokkee ci waa kër wàllu euh, euh, waa kër si euh, wàllu kër may ak si wàllu kër bàyyi fa ñu war a bokk liggéey ak jaamu yàlla rek la leen xare am na ñoo xam ne fii xamuñu kuy Birima Mangara sëñ Karim la xam ñuy def liggéey bu mucc ayib tey say kaay ku ñu nar a jàppale war ngaa sigiwaat bu baax kontaan ndax it ki fi nekk da koo jàppale woon bu baax fekk na ko Europe mu ànd ak moom du ko jàppale la tax mu bàyyi ko nag xëy na moo tax ñun ñu bàyyi ko ndax nit day mën nitam nit day am kóllëre nit day koy considéré doomu aadama bu ci considération jógee na kon nag ñu ngi gërëm ñëpp. mënuma monopoliser parole bi mais maa ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp tey woote waat rek ni xam naa ni moom am na sama benn mbokk mu desee démb dafa naa dafa ni ma yow foo nekk ndax ñu bëri xewoon nañ ba ma bàyyi affaire ci moom laa nekk ma ne ko ci birima laa nekk mun ma foofu de baax na sama xarit la barkeb Cheikh Mouhamadinil Mountakha barkeb Cheikh Mouhamadinil Mountakha barkeb Cheikh Mouhamadinil Mountakha Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te te yàgg ci ginnaawam te wér. ngeen jéggal ma tuuti rek kàddu yi du gudd waaye dana am njariñ dama bëgg sénégalais yi seetaan ñu xam ne bis naka tey maane bu jibee moo ne amatu faw yoon tey maane man ma dikk jëng maa nekkoon bennoo bokk yaakaar doon fa liggéeyal président Macky Sall àndoon ak dem si yàlla sa yàlla na ko yàlla yërëm sëriñ Bassirou Mbacké Tine maa ngi ñaan yàlla na suuf woyof ci kawam dem rek ci lu mu doon def ci àdduna te daje faat tawféexi Cheikh Mouhamadou Bachir bis naka tey maa yëkkati sama loxo ne bennoo bokk yaakaar tuddee tuma ko bennoo bokk yaakaar bennoo tas yaakaar na Benno Bokk Yaakaar nag man tey maa ne man ma dikk jàng àndatuma ñoom maa ngi mbooloo mi ma àndal maa ngi nuyu soxna Astu Gaawaan seen bokk ci njabootu sañ Basiru Mbàkke tiib maa ngi koy seen dëkke Daarul Tansiir maa ngi nuyu soxna Faat Njaay dëkke Kër Baay Laat bokk ci njabootu sañ Basiru Mbàkke tiib maa ngi koy seen maa ngi nuyu Fatou Ndiaye Touba Boukhatoul Moubarak marché bu bees maa ngi koy nuyu waaye niki noonu laay séenee mbooleem ñu fa jóge El Hadj Jamou jóge marché Mame Binta maa ngi koy seet ak mbooloo mi mu àndal ñu suuf woo nañ ma téléphone ba tas waaye dañoo mënta yéeg Moustapha Dieng moom Baye Sëñ Dieng forage su Ndiouga Kébé mi ngi ci suuf moom bi ñu àndal su ma ko noonu fi la fanaan ñoom ñëpp. nañ mobilisé wu ànd ak Madické Niang mi nga xamante nii moo fi des dese njabootu Serigne Bassirou Mbacké Typ gi di leen teete ñoom ñëpp ak plateforme bi nga xamante nii maa àndoon ak ñoom depuis Ablaye Wade ba léegi gis naa fi Ibrahima Diaby Gassama Petit Dioukhane ba ci soxna Maguette Bassel mën naa ko ci cité ndax ci plateforme boobu la bokk ak soxna Boussa Diagne nekk di daal yàlla ay dagay ma nga ne toog ci plateforme boobu la bokk plateforme bi di plateforme bu yàgg di bu yaatu mais nag man nekk APR moom ñoo fexe ba reconnaître plateforme bi kon tey dama leen di xamal ne ah attention nag APR su fekkente ne am nañ ab tiitukaay wala ñu ne ñoom dañuy politique wala xam nañ ñuy politique image bii tey buñ tëddee duñ nelaw ñoom image bii ngeen fi gis même yéen journaliste yi xam ngeen ne image su qualité ngeen fi gis te xam ngeen bu baax a baax département bi kenn du leen ko jàngal ndax mbojo mbojo lañ fi andi wala ay nit lañ fi andi ñun duñ wax ak mbojo mbojo de dañoo yor ak lonkaan ak roq na dañuy lonk di andi waaye roq bi day roq di delloo ñu bëggu ñoo ànd ak kuy triser képp ko fi ñëw na la Birima ñor na la sëñ Abdou Karim ñor ñu ànd liggéeyal Birima Birima Mangara président 2000 le 24 février 24. loolu 2024 loolu lañ gëm ci dynamique boobu lañuy ñuy dox. kon nañ leen takku am jom am fulla am ngor te xam ne as gor kàddoom moo koy yeew xam naa ne su ma fi nekkoon di wax fii ba suba li ma bëgg a wax du jeex ndax xadar laa koy waxee ndax damaa yàgg foo xam ne amaluñ ma njariñ sama temps bépp jeex na fa ma door faa jóge ñëw ci Birima Mangara ànd ak moom ma di leen xamal ne nag ñi naan Birima dëkkul Touba dañoo réer xamuñu Birima Mangara Birima 1996 la ko sëriñ Saaliwu Mbàkke jox ab loo fii ci jànnatul mahwa boori kër Sakariya Fall maam say Fall la dëkkal maa xam këram kër ga bokkoon naa ci ña fa doon dem anytime di ko yit añ ak reer di ko jële kër sëriñ Abdou Saman Mbàkke soy bu booba maa ngi yore ONG amal ah ma nag ah, lii ñëpp wax rek daf koo seexaloon ak ñun ndax man de walaay laa siin dama ne woon damay bàyyi politique bi ndax politique bi jëmoo jëmewu ma fenn te amul waaye nag bii ma day nit koo xam ne dañoo séq teraanga yoo xam ne nii séq respect boo xam ne nii ku ku ma woo di nga ko wuyu loolu moo war a suñu suñu ñëw ñëw boo xam ne nag dañ cee sawar lool ñuy te comme li Mariama wax dañ cee ànd ak ñaani kilifa ànd ànd am ceeg ndigal ndax képp koo ko wax rek da koy rafetlu ah, kon nag ñoo ngi sant bu baax di ñaan yàlla taxawam li mu ko ci cet ba lii ñu yëkkati yàlla jàppale lañu ba mu yegg te jot naa ko nag jot naa ne dina yegg fu mu jëm ndax birima talal sëñ Touba la te képp ko xool xam ne murid saadeex la te murid bu bëgg sëñ Touba lépp lu mu yóotu dafa yomb ci moom kon nag ñoo ngi xamee ñoo ngi fas yéenee jàppale ko te fas yéenee képp koo xam ne nii bëgg xam nga naan ci bëgg nañ nga ñëw jàppale birima di sant bu baax nag sama samay sët mooy sëñ Abdou Karim ak sëñ Fallou ñëw nekkuñu fi waaye maa leen yóbbante am nuyoo ndax xam nañ ne maa leen ñu ci ndey ju leen ci bàyyi. 2012 bi may dugg APR sëñ Moustapha bi moo ma jël si ne ma ñëw ñu ànd président Macky Sall ñuy jël suñu ay propres moyens sëñ Fallou mii di ñu ñu jàppale keroog bi ñuy def point de presse Moustapha Cissé Lo mi ngi ñu booleeg doomam si ñëw loo lu yàgg la ci kanam ñoom laaj sekk ak ñu bari sëñ Karim. yàgg jàppale président Macky Sall man nag daf li may wax du bari keroog bi ma sëñ Karim moo wey ne ma dafa am ku ma lay boole dama ko ne xaw ma biri ma xaw ma Macky Sall man yow laa xam. koo ma an koo ma boole rek ma ànd moom ndax koo xamul noo koy def ni mu la defa tax sama diggantee moom dafa romb loolu xaw ma biri ma sëñ Karim laa xam sëñ Karim rek laay toog ku ma àndal ma ànd ak yéen fii ku fi jàll yéen ko jàllale kon dañ leen di ñaanal suñu borom yàggal leen ci suñu kanam ànd bi yàgg ci barke sëñ Touba man na comme ni ko soxna Ami Mbacke Prof di waxee rek man sëñ Abdou Karim laa man maa ngi duggoon parti APR 2012 sëñ Galas Kato moom moo fi indi woon ma nekk fa ànd fa sama ngor ba heure bi 2023 maa génn APR nag ngir ànd ak sëñ Abdou mu sëñ Bass mu sëñ Modou mu sa jëriñ ndax jikkoom ak ay qualité ak lim ma leen dimbali fànn de développement yi sëñ Abdou Karim acteur de développement la man dama ne woon damay bàyyi politique ndax damaa sonn ci APR damaa daw bay bëgg a dee boo xoolee fii nag tubaarkàlla macha allah Birima Mangara xelam war naa dal ndax ay nit qualité bi nekk femmes yu am engagement yu autonome yu dynamique ñoo nekk ci salle bi tey tubaarkàlla ku nekk war nga xooloo man nag ma fas yéene jël sama engagement ci Birima Mangara eh. derrière Serigne Abdou Karim Mbacke bu sëñ Bass bu sëñ Mor bu sañe ndax moo may jàppale sëñ Abdou Karim bi may jàppale fekk na lottu naa lool ndax baas loxoy gisal ko téye te sëñ Abdou Karim tubaarkàlla macha allah loxoom day ñëw ci man ci zaahir ak baatin mënuma koo fay Mbacke dama koy ñaanal aw fanam gudd lool te mu àndal wér ci barke sëñ Fall. de la zone 3 mais macha allah maa ngi ko tegal sama bopp. teg ko fa gis nga gis nga boolewu ma ci coow boolewu ma ci xuloo boolewu ma ci ay audio def ma ci ay message man fa nit ñu baax ñu teg seen Tuubaa gis si seen tànk Tuubaa foofu laa jëm lu may def dama koy def ak diplomatie lu may génn dama ci génn ak diplomatie loolu laay def. xuloo ma kenn denc ma kenn maa ngi baalu àq ñëpp. maa ngi baal ñun moom la seqal mu laal man daal maa gis liggéey bu doy moom. gis samay personnel de qualité mën nga ko ànd ak moom ci jàmm ak salaam parce que yow il faut un changement radical moo di monsieur bi ma màngal dañ ko bëgg a dimbale ànd ak moom jàppale ko mu jëm ba pare présidentiel. yaakaar naa ni euh, affaire bi wala bien avant sax wante nag wax dëgg yàlla politique jëmul fenn da ngay ànd ak ay nit am na ñu nit am na ñu ñu àndal am na ñoo xam ne ànd naa ñu fi ginnaaw. li ñu la mën a wax si yàlla ñii benn bu si nekk mën ngaa am responsable dañ ñoo réservé ay quelques personnes lañ ànd ak ñoom ñooñu depuis des années nga ànd ak ñoom soo solee lii peut-être sax ñu ñaaw ndox il faut ko jëlee te la yàlla xam nga yow te politique na vraiment da ngaa gis sa bopp loolu nag amu fa ñuy ñaan président Birima Mangor ak staffam bii may dugal coow sa benn parenthèse si Abdou Karim Mbacke bi ma ko xamee yàlla ku am solo yàlla na ko yàlla la ko yàlla na ko yàlla eggalee ñu ngi si coono ñu ko baax ñu ko jëlee ñu ko bëgg bu baax ñu ko daal nag dama xam leen lu ma dee ñaata si dafa mel ne ma dikkal yàlla di ko influence bu baax lool lool lool. politique day yaatu politique massification la amul mooy dimbale nit ñi yërëm nit ñi dig leen nga xam ne ni yow boo ko amul yàllaa ko bu ma ne bëgg nga ko loolu laa gën. ñun daal teg nañ ko ànd ak condition. sans condition sans condition parce que loolu la ñuy woo à o paire suñu bopp rek sans condition. avec nos maîtres mooy nag dina ko dox biir askan di def social parce que noonu la ñuy corps médical di def ay social ñooñu nga xamante ne jàppale woon nañ leen yéen a ñoo jàppale ñi ñuy parrainer te parrainage yëpp dañ ko teg ci loxo sëñ Abdou Karim sëñ Modou Kégé ñu joxoon ko ci biir Mamadou incha allah au soir 24 heures di waa presse bi yëpp nag di kontaan liggéey bi li Mariam Ndiaye wax rek su fekkee li neexee day jaay jàpp ca mag yi ca yéen a ñu tee yéen a ñuy wane waaye nuyu suñu leader président bi di ko nuyu di ko ñaanal ndam di wax na nag wax ji jooli jooli pale la pale la ñuy dañoo bëgg a dugg dama ne Birima lay dugg kenn du ko téye waaye ku mu àndal fu mu jaar dugg Seydou Karim la àndal. doomu sëñ Maodo Seye Dieng moom sëñ Bass moom sëñ Fallou Fallou Moussa Fallou mu njëkkaat yi kooku ku da ngay ñamee dama ne sëñ Fallou ñu dee te sëñ Fallou ku nii da ngay ñamee président bi ñoo màggal ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ko pale yéen nag nga xam ne yéenay sëñ yi mobilisé wu leen takk bu dëgër gëm seen bopp ñu ngi seen ginnaaw rek ànd ak yéen rek ba yóbbu ko pale fii daal moom macha allah dañuy liggéey ñun nag ragaluñu birima lañu àndal tey moom lañu àndal ëllëg xool